huwa arrahmaanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيبنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخياء المتقين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di ziyaar ñëpp di ndokkeel ñëpp di jiital ci nuyoo beeg ziyaara bi ki jiite xadra bu muy sunu maam a Cheikh Al Hassan Seck di ko ñaanal yàlla wér ak fan wu gudd ak tawfiq ba li mu naan lépp yàlla eggal ko dama am ci ngërëmam di nuyu euh, rakkam bay ñaaxa ak sama araman Seck ak imaam ak ñi fi nekk ñëpp macha allah di rafetlu jotaay bu am solo bi nga xamante ne bi nii. Euh, wax dëgg yàlla tegtal la waaye mbégte la maanaam mën na lu bashiraati ndax euh, yëf yi ndaw ñi ñoom ñoo ko yor euh, fu la ca kokki liggéey ba fa nekk ay ndaw a yor ku ñu wax oustaz Ahmad Lo doomu suñu waxtaan naaróor naan maa ngi woo ndaw ñépp ñu ñëw ndax liggéey fi mu toll nii ndaw moo ko man ndaw moo am cawarte ndaw moo am énergie ndaw moo am kii yooyu yëpp waaw kon mu ndaw ñu jugee di di def li mel lu am solo la te lii tamit bokkoon na ci programme mag yi mu ñu wax temps bi temps bi dafa am ci lislaam mooy mobilisation ñi nga xamante ne ñëpp euh, pour yitte waxoon na ñu war a taxawee et li ma bàyyi seen waxoon nag mooy dawru ba Thiénaba as-suufiya fi tarbiya pour waxtaane ko nañ taxaw ci ay tomb ak tasawuf mafhuman wa nashatan maanaam tasawuf lu muy tekki ak nan la sosoo nañ ci taxaw a ak tariqa mafhuman wa dawran tariqa moom mooy lan ak ban rôle lay joué tariqa tijaaniya tamit nañ ci taxaw ak arkaanuha ak ponkam yi nga xamante ne kii madrasatu eh, almahdawiya maanaam la madiankisme dinañ ci taxaw tamit pour Souleymane ji wax na leer naa ji nañ ci taxaw wa wala hawiya diine la madiankisme et son identité religieuse maanaam kenn yi nga xam ne ci lañ ko ci la mañ ñi taxaw eh, tabax doog ñëw na ci tarbiya tarbiya tamit maanaam bu ñu tarbiya nit ki yan lañu bëgg a def ci moom bu yooyu amee lan lañ ci góobe ci ay résultats yoo xam ne dana dana jur njariñ doog a ñëw nag ci tawsiyaat yi tomb yooyu daal bu ñu temps bi mayee insha allahu ci mbaaxu yàlla ak ndimbalam ci lañ bëgg a taxaw léegi nag pour lay taayal waxtaan wi maanaam introduire thème bi yàlla borom bi subhaanahu wa taala moom moo bind moo bind alkawnu bi nawaayihi maanaam ñaari monde yi monde bii ñu nekk di muy alamu shahada ak ba nga xamante ne bi nii duñu duñu ko gis maanaam bii lu fi nekk lu nekk mën nga kaa gis sa bët wala nga làmb ko sa loxo wala nga euh, xent ko yu demee noonu mais bële nag alamul xëy bi mooy le monde invisible yooya mënoo caa xam lenn lenn lu dul wax yu lu dul wax yu rek moo la mën a wax la fa nekk ñaari monde yëpp la fa nekk ci ay mbindaafoon yàllaa ka fa def ba noppi teg ko ci aw yoon du ko wàcc rabbuna alladi ata kulla cheyin xalqahu summa hada yàlla moo bind lépp daa di ko teg oriente ko du wàcc yoon woo ñu koy hidaaya mutlaq l'orientation absolue lépp loo gis rek la muy yëngutu mooy jaamu borom bi subhaanahu wa taala da nga min akbari sayyaaratin fi sama ila asgari zarratin taxta al ci galaxie ba gën a ngandee ca kaw asamaan si ba ci atom bi gën a suufe yépp ci leen la yëngu mooy topp yàlla màggal ko subhaanahu wa yàlla nag ci ak mbaaxam moom ci ngëneelam moom borom bi subhaanahu ak ci coobareem ci biir mbindaa fan yooyu daa am ku mu ca génne tànn ko waaw maanaam wa rabbuka yaxluq maa yashaa'u wa yaxtaar daa am kum tànn ci ñooñu moom mooy nit defal ko lu mu deful benn mbindaafam moom nit bërki dem nañ jóge ko ak sëñ ma daan naar loo nii doy na rek ab dayo nit taxaw ne man maa représenté yàlla ci kaw suuf xalifatullahi loolu moom foofu foofu la dayo yam waaw maanaam defal nit làmmañ wuy wax ñu ngi nii di waxtaan xar day mbee ginaar day sab fas day ñexal làmmañ làmmañ wuy wax loxo biy jëf yaa nga dégg la ko xel muy xalaat jëmm ju taxaw xaamal ma yooyu yëpp tànn ko nag yaa ma ci kaw suuf nit ràññeeku lool ak yeneen rab yi boo dee xool bàyyi ma ci kàddu gi gaynde buy naan wala béy day dëpp gémmiñ gi ci ndox mi yuut yeeg salte yëpp mais xoolal nit xoolal li ni mu jekkee ni mu rafetee nga defa rom kii xel di naan naan bu naan naan bu naan bu jëkk gaynde day fàdd di lekk waaye ni mu ko boo xoolal nit ba xas ba mu set mu togg noonu nit wuuteeg yooyu lépp. moo tax topp yàlla nit daa war a wuute ak bu rab dam ak taaxatul insaniyatu lillah maanaam l'obéissance humaine euh, nit ni muy toppe yàlla daa war a wuuteeg malaaka sax ni muy toppe yàlla daa war a wuuteeg rab ni muy toppe yàlla ñoom ñëpp dañuy topp yàlla loolu moo tax boroom xam-xam yi ni topp yàlla nit dafa am ñetti dimension ñett daa am salaasatu abaad al bu'd al ibadi bon débat yi mooy julli yi woor yi aj màkke yi ni ngay commercer yàlla am na ñu ko santaane xam nga champs yi ba ci commerçant yi nañ woon mu jàngal ni ñuy ni ñuy jëfee dégg ngeen jikko rafet yooyu yëpp dugg ci cadre al al ibada mooy attaatu alis al bordu al istixlaafi yi mooy dafon tayyaaril xayaat naxwal afdal fexe ba dund gi gën a gën a neex gën a yomb bu njëkk sun mag ñi ba masaan tànk vantaay la ñuy jël wala baal ma genn nag wala ay xob xoolal léegi da ngay bës bouton rek mu sedd guy loolu la ñu woy civilisation loolu la ñu woy modernité waaye boobu tamit dañ ca ñëw ca kanam ndax civilisation bu taxaw te ñaar amu ca taxtit ilaahi yi amu ca maanaam planification bi yàlla defu ko la jubluwuñ ci am yàlla lan la may woo teegee ca des loolu dañ ñëw ca kanam a kanam bi gën a am solo mooy ak taatu alon buut yi taatu buut yi nag moom mooy yëf yi ndax mooy baas bi bâtiment bi ba nee taxaw fondement bi moom moo dëgër moom moo ko yanu mooy fexe ba xol bi ñu nettoyé mu set parce que ci suratu tuur wal baytil maamuur am na ñu ko firi xalbul mu'min xolub jullit dafa war a set kenn rek moo ci war a nekk moom mooy yàlla maanaam al irtibaat al qalbi ad daim billahi subhanahu wa taala maanaam xol bi yeewu ci yàlla yeewu gu sax dàkk nga xam ne bi nii lu jo loo ci lu jo juddoo mooy ashuur bi maayati yëg ne yàlla mi ngi ànd ak yow shuur boobu nag daa am ci yanaa bi ay sewnde yu muy sosoo sewnde yooyu bokk na at tawbatu ar rajaa ñu wooye maqamaat yooyu yëpp nag tasawuf moom moo koy jàngale yooyu yëpp ñu nga xamee ci tasawuf tasawuf euh, fan la baat bi jógee bari na ay istiqaaqaat istiqaaqaat mooy am na ñaan mi ngi ci asafa mi ngi ci suuf suuf ba ñu wér a mais ba ca gën a wér te abul fathi al basti te génn àdduna ñeenti téeméer ci gàddaay yonent bi mille dix ci euh, gàddaay kii nee na taxaalafa naasu fi suufi waxtalafu wa zannuhu jahlan mushtaqan min as-suufi walastu amnahu hada al isma gayra fatan saafa fa suufiya xatta summiya suufi nee nit ñi wuta nañu lool ci baat bi fan la jógee ñu naan ca suuf waaye nee na man daal dama jox baat bi kudul ku set wicc laab cëram yi dafa set wicc xolam set wicc ruuxam laab kooku laa koy jox naka la sosoo moom moom nag loolu mooy maanaa loxo yi bi asafa set safa dañu asamaaw saafiya asamaan di sedd na bu dee ci istilaahan nag ilmun la ab xam-xam la ilmun li islaahi alqulubi wa ifraadiha lillahi amma siwa xam-xam la boo xamante ne bi ni comme xam-xamu médecine xam-xamu médecine li may jaay mooy da da fajaate boo jàngee rek ba toog am naa xam-xam fajoo kenn du am njëriñ tasawuf tamit noonu la fi mu toll yàlla woo war di yor moo war di yor lu lu mu am am doole boo liggéeyul doo dem waaw alxuraan jii bu fekkente ne bi ni jëfewoo ko doo doo jëriñ jëf yi jëf la l'islam lépp pratique la même li ñuy woowee sax théorie ci l'islam boo xoolee pratique la te maam di diine jëf la moo tax tasawuf am na ku ñu Abdul Qadir Isa bin na benn téere mi ngi génn àdduna 1412 ci gàddaay yonente bi 1991 téere bu am am sama xaqaayiqu tasawuf nee na a tasawufu ilmun li islaahi l qulub kama anna al fiqha ilmun li islaahi l amal tasawuf xam-xam la boo xam dafay defar xol yi ñetti nag ñetti baat yi jar naa bàyyi xel dañuy woy an nafsu ar ruux ak al qalbu ñoom ñëpp benn benn benn benn benn sens la mooy xaqiqatul insaan dëgg dëgg nit waaw itiba maanaam ñu waxaan euh, yéegi tajtamiu zaatan wa taxtalifu ictibaaran ictibaaraat yi moo moo moo tax ñuy wute moo tax tasawuf ak fiq ñoom ñaar muta dañoo taqaloo duñ taqale ko muta laazimaani ka talaazumil arwaaxi wal ajsaad comme ni yaram ak ruux di ànde bu ñu tàqale ko euh, yaram bi dañ ko fi jëlee parce que man naa jur yeneen dégg nga moo tax imam malik imam malik mu mag ma nee na wa man tafaqaha wa man walam yatasawaf faqad tafassaqa wa man euh, waaw waaw wa man tafaqaha walam ba man jamaa ba faqad xaqaqa maanaam ku jàng ba am xam-xam lool lool lool te kenn tarbiyewu la bandi ngay doon leer na ci abu nuwaas abu nuwaas dañ ci ñëw abu nuwaas benn dafa amoon euh, kii ni benn jigéen bàlli ma ci kàddu ñu am lu mu bëgg ci moom di ko leb xaalis sama jëkkër dafee newul mu wax ko ne ko léegi euh, mën naa nekk yow kenn doo lebal mais dañ lay jox xam ne ko saay saay si di waxe mais nag foog ñu dugg ci néeg bi jigéen ñu ne ko man dama mooy yàlla mu ne mu ne kono yéen yéen déglu leen alxuraan lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuun li ngay wut doog am lu la gën a li gën a bëgg da kaa joxe xoolal xoolal ni manipuler alxuraan ji xam-xama fa nekk te tarbiya ñëw fa waaw léegi nag ku leen boole ñoom ñaar nag kooku dëgg moo tax maam Sëñ Tuubaa wan ko masaalikul jinaan wa man tafaqaha bila euh, bila tasawufi faqad tafasaqa su ruuxin faarifi man nekkoon jàngi sa fa innahu ila tazanduqin amalu sha'nahu ku leen boole ñoom ñaar nag dégg nga xoqalahu an yu taba axraja dal xokk mal imaamul maliku rahima wa radiya anhu maliku wala imaam malik wax kon ñoom ñaar bii day defar jëf yi fiq mooy defar jëf yi euh, tasawuf mooy defar xol yi naka la sosoo moom tasawuf xam nga bi yonent bi di nur sallallahu alayhi wa alihi wa sallam booba soxlawuñu woon ay xam-xam soxlawuñu woon fiq ku ci bind ci fiq ay naxu ay sarf lu tax parce que sang baa ngi fi di alman ban di source bu set bu leer bi lu ñu soxla ñu laaj ko ko saxaabatul kiraam am contact direct ci moom boo ñëwee boo loo soxla loo laaj mu wax la te leer nañ dégg nga yonante bi tamit lu lu ñu ko laaj fekkente ne bi nii kii mun xaar leen balaa suba laaj ci ne ko moo yas alu nag bari ci àll yas alu nag an xam ne wala may siri yas alu nag nangam nangam muy tontu kon soxla wu ñu woon euh, di bind ci xam-xam bi Seydina Rasulullaay làqoo nag l'islam commencé yaatu ay étranger ñoo di dugg ci diine ji problème commencé am yàqu-yàqu commencé fee ñu soxla yàqu-yàqu yi lu ko yu ko lu ko saafara sedd nañu ni làmmañu arab mi ngi commencé yàqu ci ñaar mi ngi commencé yàqu ci nit ñi ñi ngi def lax na maanaam boo ne shariba ar rajulu almaa ñoo ne shariba ar rajula almaa waaw xam nga loolu loolu moom moom shariba ar rajulu almaa dàmm googu mooy wane ni góor gi moo naan ndox mi yow nga ñëw ni nag shariba almaa u arrajula maanaam ndox mi moo naan góor gi wax yooyu commencé kii ku ñu wax abul asad addo ali rahmatullahi radiallahu anhu ñëw ni shakawtu ila aliyin an kasrati lahni ñëw naa ci ali ni ko yàq yi daa bëri lool ci làmmañu arab imaam ali ni ko ukkutub imaam ali nag yonente bi nee na mee na maay niigu xam-xam ay ma bi ukkutub bismillahi rahmaani rahim al kalimatu ismun wa fi'lun wa harfun al ismu ma anbaa an il musamma wal fi'lu ma an baan xarakatil musamma wal xarfu muwassilun baynahuma bindal neel euh, baat baat ñett la le nom le verbe la particule maanaam ismu ak fi'lu xarf ismu bi mooy ki jëf-jëf ji euh, fi'lu bi mooy jëf ji arab moo leen lënkale ñoom ñaar xool wan xu haada naxwa nga to nga sóobu yoon waaw naxu naxu daal di génn wu génn kon naxu dafa ñëw pour sàmm euh, setuk Eh, dégg nga dégg nga luxal arab luxal arabee nag yàlla moo ko tànn wàcc ci alxuraan karim luxal arabee ba abu jëfin daan wax ba imul xaysi daan wax bokkul ak bii nga xam ne ci la bokkuñ ci ay baat bokkuñ ci ay maana bokkuñ ci ay tegtal bokkuñ ci ay tëggin bi yàlla da ko tëggiwaat neneen ba mu mën a bañ mën a yàq ci ay alxuraan karim balaa xa ñëw balaa xa lëkkalaa déggin ñoo commencé am problème parce que euh, ku ñu wax Muhammad ibnu Musanna dafa toog euh, benn góor benn waay ne ko man daal ci alxuraan am na yàlla wax garab ga ñu rëbb garab ga yàlla rëbb ashajatul mal'una tam wax ne ma nga sax ca suufu sawara tooñkat yi dinañ ñëw ci garab gi tooñkat yi ñoo cay lekk bi ko yàlla de wax dafa mel dafa wax ni daa mel ni bopp seytaane te ñun mos gis bopp seytaane ci tës bii nga bëgg wax ne professeur Souleymane Dia yàlla yàlla sàmm dafa tabe am kuy sikki sàkk tabe gi moom moom moom tabe gi nu mu demee noonu nga ni ko hee géej la bu tawee ñëpp tooy aw xiin la bu tawee ñëpp tooy maanaa yow yaa ngi bëgg a leeral tabek professeur Souleymane Dia moo tax nga koy melal ci dex wala wala wala wala xiin kon ki ngay waxal war naa xam lan mooy xiin am leer ko nañ mun yàlla nag bu nee daa mel ni bopp seytaane te kenn nit ñun gis seytaane loolu problème day am góor gi na ko déggoo de yàlla bëggu laa xamal garab ga na ma mel dalaa bëgg xamal ne garab ga dafa ñàng ndax lépp lu ñàng rek dañ koy melale seytaane ibnul xaysa bàyyi ma ci kàddu gi daa nekk soxla si ba caag mu ne ay borom dëkk borom borom këram fekkee ma dee de daa ne mënula ma dara sama xeej baa ngi nii daa ñaw ba mel ni sellu njuuma ka annahu an yaabu axwaali waaw lu ma waxaa ma dafa daa ñaa ngi foofu balaaxa daal di judd daal di ba jaasul quran balaaxa daal di judd abdul qaahir jur jaay daal di ñëw bind asaarul balaaxa kon gis ni balaaxa dafa judd ngir sàmm dégginu nit ñi dégg nga naxu dafa judd ngir sàmm euh, làmmañu arab loolu mooy xaw ci tasawuf yoo dem ba ci Ibnul Khaldun wax na benn téere bu am solo euh, suñu étudiants na ngeen ko jàng ba al ibar kitaabul ibar wa diwaanu muqtaday wal xabar fi ayaan arabi wal barbar min zawri sultaan akbar tur yi ni mu guddee noonu la téere bi solo téere bu am am solo Ibnul nee na fil qarni saani al hijri ci deuxième siècle ci gàddaay gi nit ñi dañoo dummóoyu woon diina jublu ci àdduna bëgg àdduna lool loo lool jaxasoog moom euh, société bi yàqu sikki sàkk am ci diine ñuy faye nit ñi te dégg nga xutbakat yeeg sëriñ si ku la dàq mën a wax dégg nga talaamu bi naas bi bi si amaali fu noonu wa taswiqil kalaam dégg nga caaxaan yi bari lool jukkey jukkey njugub xam nga njugub day juutu njugub bàlleen ma buy nelaw day juutu bu ko defee liy génn ñoom sobee day su teg ko ci kawam fitra bi fitra dafa dafa juuti woon bu ko nattukaay tamit juutu léegi du ñu li ñu xàmmee nit mooy comme am am moo tax kenn ku nekk naan noo amee baax na ndax ko amul bokkoo ñooy les exclus mooy ñi amul bokkuñu moo tax noo amee baax na dégg nga bi ci des njugub du gis ci leer njugub alxafaa fiish du gis ci leer ci lëndëm lay gis nit ñi tamit amul lenn lu ñu def mu leer kenn ku nekk ci lëndëm ngay nekk la ngay def doo doo ko ñu ni ko bàcc ci pénc mi xam nga nit nit ku jub lu muy def lu ne mën na ko teg ci pénc mi kenn du ci kenn du ci macha allah loolu ñaareel ba. ittirab fikri yi am maanaam perturbation intellectuelle perturbation de la fois am lu tax parce que dañoo traduire la philosophie grecque mu ñëw xam nga bi ñu jëmee bi ñu ñëwee bi ñu ñëwee gars yi ma amoon bi mu yebale benn équipe pour ñu dem pour ñu dem fële Grèce pour traduire seen seen bibliothèque bi juróom benn téere yi gën a mag dañoo lànk ni kenn du ko laal parce que lii mooy suñu force si suñu lànk ñu def benn réunion ñu lànk ba alkaayinul akbar daal ni bàyyi leen leen ñu ñu ñu ñu yàq ko ci laam làmma ñu arab ñu ne koo tax mu ne maa maa xalaat haadihil kutubu ummatan illa afsadataha téere yi xeet bu mu dugg dana ko yàq ndaa di ko traduire andi ko bal bala fikri yi am maanaam maanaam yàq yàq ci wàllu xalaat mujj daara yi werante rek werante même sëriñ si sax da ngay toog da ngay toog ci buntu ci buntu jàkka ji sëriñ si yoo yoo benn masala la ñuy werante mooy lan mooy àtte ko fase sa nopp soxna maa ko man talaqa uzna yi loolu loolu ay xam-xam la moo tax imaam Chafi yi bi mu bi mu ñëwee ci Haroun Rachid imaam Haroun Rachid di ko testé ba gis dafa fees dell fu mu dugg rek Chafi ah, gi ba ex ci fiq mu ne ko moom xaw ma ci dara mu ne ko tax mu ne ko parce que du xam-xam mu ne ko addeet mu ne ko non ay caaxaan ay fola te boobu dañ dañ daan fo mu ne ko demal ci Malick mu jàngal ko naa la booleeg moom daal di bind lettre mu ñëw Malick tamit daan ne ko non non non def ak alquran boobu nit ñi dañu daan natt xam-xam mooy mokkal alquran karim am nga professeur Souleymane Dia mi ngi fi nee nañu maam Cheikh Amadou bi mu euh, bi bi bind leetar yi di woote jihaad ji bi mu laajtee ma Amadou Ngoné Ndak eh, ni lu ngeen xam ci moom am ko ni ko ñaar du gàcc ci kaamil bi te bu dammeel doo ñëw du deltu gannaaw ñaar yi kon kooku góor la na ñëw am du gàcc ci kaamil bi te bu dammeel doo ñëw du deltu gannaaw ba bu ñu nee dammeel ay ñëw rek góor yëpp daw ñu dem ci ngeer yi ñu yëg ci kaw garab yi ñuy laqaru ñu kii mel ne na du bougé ragalagul kenn ku dul yàlla Malick ne Saafi noo def ci alxuraan Saafi ne ko mokkal naa ko tafsir naa ko ñu ne ba mujj Malick fi mu toog mi ngi jàngee ci Saafi mu jàngal ko mu watta juróom-ñeenti fan may ko fas jox ko yóbbal ni ko demal Égypte nga jàng ak al fiqhul hanafi bu caaxaan yooyu amoon moo taxoon kii bu ña waaw li ci des ci des nag mooy suyuul fa faaxis ñaaw ti fi fis lool sonraaw yi commencé di di def ñaaw ñaaw ci ci ci way xool Bachar ibn Burdu Bachar kaana mufhishan ku mu ñaawaloon mañ la daa maanaam euh, am na soxnaam ba leen ma de soxnaam su muy su muy su muy wax xam nga xësal dañ koy def zikr mahasini nisa jigéen ju rafet ngay wax ci moom nangam nangam euh, bari na bari na bari na ci kii euh, mu addiment traleyey bu gaa ba bëggee parce que naar naar da fonk jigéen lool lool ba bëggee nit ñi déglu la da nga dugg sa commencé wax ci wax ci sa sa soxna wala sa su ndaw ñëpp ne teg parce que boo tuddee jigéen ñëpp ne teg ba nga téye leen dogo jàllale sa message mais Bafsa dafa mujj bu bàlleen bi wax ci jigéen ñi day wax bay meleel seen cëri biir yi mujj gaa yi dem ci xalifa bi ni ko nag haadal xasal yufsidu axlaaqa nisaa lii day yàq jikko yi hajaa dafa hajaa bañ rey ko xoolal euh, ab abonwa alxasan ibn hani alxakami mi génn àdduna 813 gii taxaw ci digg penc mi xoolal ku taxawoon tey imagine toi ku taxaw ci digg penc mi yor kaasab sàngara ala fasqini xamran wa qul lii hiya alxamru wala tasqini sirran idaam kër ba am na alxamriyaat sax xamriyaat abi nuwaas da ngir siiw mbon googu si woon nag jikko yàqu euh, lépp yàqu pas-pas yi yàqu xam-xam bi yàqu daara yi sax fi ay werante yu nekk fa am ci lay góori yàlla yi na génn lim nu xal du ne na nag in bara al ulama al muqbiluuna ala diin noonu la yàlla yi na génn di jël ku njël rek daf dafa yow xuruj yóbbu la ci àll bi 40 jours ni leen nag fexeel 40 jours yi kàbbaru armal imaam bu mu ka feebaru xol feebaru ruux li ci gën a gaaw ci saafara ko fexeel ba 40 jours yoo xamante ne bi ne julli juróomi imaam buy kàbbar na la fekk sàppe si bala moom mat lépp dañ waaw di di def tarbee gaay foofu nag da tasawuf génne tasawuf génne daf turuq yi commencé commencé ñëw lan mooy tariqa a tariqatu ci ci li muy tekk rek mooy al a as siira boo demee ci ibnu mansour fi lisaan euh, 696 paas ba nee na ak tariqatu euh, hiya siiratu mooy yoon wu ñuy jaar mooy méthode bi ñuy jëfandikoo tariqatu rajuli mazhabuhu mi ngi ci alxuraan wa an law istaqaamu ala tariqati ala tariqati lhuda loolu mooy maanaam luxa bi nee na foofu foofu la jógee léegi istilaahan nag am na ko ñu wax Ali ibnu Muhammad al Jurjani mi ngi génn àdduna 806 gàddaay yonante bi 1413 bind na benn téere bu am solo ak taarifaat téere bu ama am solo ak taarif moo dem mustalahaat Euh, ki terme yu bëree bëree bëri bëri ci ki boo demee daa fekk mu mu taarif ko téere bu am am solo maa ngi conseil étudiant yi ñu gën ko bàyyi xel boo demee ci page 143 nee na at tariqatu hiya siiratu al muxtasatu bi salikina ila allahi subhanahu wa taala min qat'i al manazili wa taraqi fi al maqamat mooy yoon wi nga xamante ne bi ni moom la nit yàlla yi sóobu ngir egg ci ngërëmal yàlla subhanahu wa taala topp manzila manzila pal manzila ak di yéeg ci maqamaat yi loolu mooy loolu mooy loolu kon yoon la boo xamante ne bi nii nit ki def def ci jaar pour egg ci ngërëmal yàlla mel ni yàlla bëgg mu mel ni asaasu tariqa alquran wa sunna tariqa asaasam fondement bi mu taxaw mooy alquran wa sunna am na ku ñuy wooyee Saïd Nour Sy ba diyow zaman dégg nga almutawaffa 1960 la génn àdduna Saïd Nour Sy mooy sëriñu Fatulaay Gulen sëñ Seexu mi ngi Fatulaay Gulen xam ngeen ko mooy ponkal moom nga xam ne bi ni macha allah moom yaalu moom ñoom euh, ñoom xarakatul xidma al alamiya ñoom ñoom seen seexu liggéey na ak ñoom ñu am doole lañu ku ko moom mi ngi Amérique Fatulaay Gulen Fatulaay Gulen mii kii mooy sëriñam comme ni maam Amari Ngoone laa boo ne njaboot ci sax Tijaan yi noonu la kii njaboot ci ba di Usmaan ba di am naa it am naa ñaar fukki téeram ak ak lu teg ku jàmbaaree jàmbaare guur gu guur gu yéeme sax gis naa ci téeréem yi ci tarjumaan bi dama xamul ba léegi nag laaj naa ko ñu bëree bëri mais nee nañ ma ni lañ ko gisee ngeen gis téere bu may liir bu ñu wax tarjumaa dañ naan ci ñaari semaine ci la jàng alxuraan fukki fan ak juróom li la gis laaj naa ko ñëpp lu bëri ne ma en tout cas daal nii la gisee xam nga kii waaw na am na téere al kalimaat ab téere la page 132 nee na inna inna turuqa al musilata ila allah kasiratun jiddan wa kullu turuqi al xaqa ustumbitat min al quran al karim nee na tariqa yu yóbbu nit ñi ci yàlla bari na lool waaye bépp tariqa bu wér ñu ngi ko tibbee ci alquranul karim ak sunna su yonante bi ba di sama ma ma ma ma ko ndax lu tax parce que yéen a ngi fàttaliku xadis boobu nga xam ne bi nii ñëwoon na ci Seydina Amar moo toog ak sahabatul kiram euh, yonante bi moo toog ak sahabatul kiram Seydina Amar moo la xadis bi ba caag benn góor gu rafet dugg si bi mu dugg see daal toog ci bët wóor na am am kay laaj maa huwa al islam maa huwa al maa huwa al ihsan bi mu paree ñi nga xamante lislaam ñoo leen yitteel daa am ñoo xam ne bi nii ay jaam yàlla ñoo xam ne bi nii yàlla alladina yuballiguna risalatillahi seen dund ci kaw suuf mooy servir diine bépp nokki bu ñu nokki ci àdduna énergie ba ñu ko def ci liggéeyal diine ñooñu tas nag doon ñett ñii daal di jublu lislaam ba yonent bi lislaam mooy lii nangam nangam nangam jàngat ko faram ko xool la ci aju ñi ñëw jublu imaan jàngat ko fan fan lañ aju ñu ñëw jublu ihsaan kuréel bu njëkk bi nee moo jur fuqaaw yi fuqaaw xaw yi nee na nee na nee na ñoom ñoo jaa ñëw ñëw lislaam bi jàng julli jàng woor jàng aj màkk jàng asaka jàng jàng nu mu tuddati commerce ak nañ nañ koy defee jàng woqubaat yi dégg nga dégg nga yëpp ñu jàng benn par benn lam ñu def ko euh, dégg nga bëri na fi eh, fiqul maliki fiqul shaafi fiqul jaafari fiqul hanbali fiqul zahiri fiqul zaydi mazahib fiq yi bëri na yëpp fu ñoom seen foofu lañ jóge al iman mooy mooy mooy ulamaul kalaam maanaam ulamaul aqida al ashariya al maturidiya al mu'tazila ñoom ñëpp kenn ku nekk da nga am ay lay yu dëgër dëgër dëgër nga am ci nga am ci ci ci ci ci ci ci lislaam hmm? dégg nga eh, al ihsaan nag ñëw mooy ñoo xam ne dañ jàng maqaamaat yi maqaamaat yi dégg nga ak tawbatu alxawfu ar raja yu demee yëpp dégg mu ni euh, loolu lañ cey déggee mooy euh, buñ ne tariqatul junaydi wala tariqatul Cheikh Ahmad Tijaani wala tariqatul Cheikh Ahmad Bamba tekkiwul ni ñoom ñoo ko sos déedéet comme bu ñu nee fiqul maliki maliki sul fiq bi de wala ñu ne fiqul hanbali déedéet wala ñu ne aqidatul al ashariya ñoom ñoo ko tib ci alxuraanul karim parce que ci ci ci lislaam dafa dafa am ko xam ne dafa jàng ba egg na ci au sommet maanaam fil ximma ci xam-xam bagaas yëpp ñu ngi ko kooku moo am capacité mën a xuus ci teg sii di teg ay régal maanaam usul yi bu ñëwee day xuus rek teg benn régal rek dem kullu amrin lil wujub wa kullu nahyin lil tahrim bépp amur boo gis ci alxuraan ndigal boo gis rek la muy wax farata la bépp nax yi boo gis la muy wax dafa araam loolu lay wax daa génn faqih bi bu ñëwee nag ci qaayira boobu ci lay liggéey xool daa ne kullu amri lil wujub ndigal boo gis la muy wax da digal ah, kon taxawal julli kon farata la daal di liggéey ci julli julli eh, ñaata rakkaa la ñaata sunna la ñaata farata la lu ko yàqoon nangam nangam faqih bi liggéey ci azaka léegi nag kon am na al faqih moo nekk ca kaw a kaw ah, al usul yi moo nekk ca kaw a kaw am na al faqih mooy def xamaayil usul ya al faqih mooy sukkandiku ci xawaay yi pour al ahkaam al charia moom mooy bu gën ahkaam yi ñun ñi nga xamante ne nag ñoo ñoo ñoo gën ñoo ay muqallid yow yaay roy da ngay xool nag kenn ci kii ñëw nga roy ñoom noonu mu amee ci aqida nga ci fiq noonu amee ci am noonu noonu amee noonu amee ci ci ci kon tasawuf mu ni kon ni niñ tibbee fiq ci ci alxuraan ak sunna sunna bi ak aqida noonu lañ tibbee tamit tasawuf mooy nan la ñuy yaree nit ñi bañ saf si yàlla yàlla ba mel ni yàlla bëgg ñu mel ni mu ñëw ci tariqatu tijaan xam benn la ci tariqatu tijaan Cheikh na Ahmad Tijaan yi moom moo ko moom moo ko moom moo ko fi andi waaw Tijaan yi mille cent quarante mille sept cent trente sept la génn àdduna ci ci ci ci Fass moom moom moom mooy kan moom mu ngi bokk ci waa kër yoon ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, loolu loolu mooy li wér maanaam imaam Hasan moom mooy maamam dégg nga léegi foofu da nga da nga laaj benn laaj. lan moo génne waa kër yonent bi foofu ba andi leen fii ci simaal ifriqiya am na benn téere bu am solo al anisul mutrib bi rawdil qirtaas fi axbaar muluki maghrib wa taarixi madinati Faas téere bu am am solo la leeral na ca lu waa kër yonent bi génn ñëw ñu simaal ifriqiya kii maanaam euh, histoire bu bu xaw a doy waar la lu xam waqaatul xarra mais daal ci ci gàttal daal moom njabootu yonent bi ay doomam ak i sëtam benn yitte lañu amoon mooy liggéeyal diine. bay ci toolu diine boo xoolee baykat nag baykat boo bayee bu setee fii boo xëyee fa set doo fa xëy ndax loo fee bay da ngay dem fa loolu moo tax xaw ma xaw ma ci waa kër yonente bi xam fa nga juddoo fa lañ la suul amul ndax tas tas diine rek mooy kii même sahabatul kiram mi ngi yitte jooju la amoon bi yonente bi nelawee ñoom ñëpp dañoo dañoo tas ci àddina bi man lii bi gis naa fa ay armée la sahaaba amay ab ansaar yi ñu ngi ko suul ca Turquie dégg nga yonente bi ci boppam lu ko yóbbu Madina tas diine da nga dégg ma amari ngooya ndaag kajoor la lu ko andi caraba tas diine Cheikh na Tidiane xanaa lu ko andi fi al ahmad saxiiru loom fu mu juddoo mu nga andi ko ak tas diine loolu moo doon seen jitte Cheikh na Tidiane nag euh, xaadima jaxate kala ci xasidaam bi waxaan wax na silsilaam ba yonent bi nee na sali wirdal muxtaari najlu ahmada wa ahmadu hada najlu waliyi muhammad wa hada abuhu salimun wa huwa xaamisun ajdaadi cheikhi sayidun ba'da sayidi xawaa sharafa tiiniya hay sunti saabuhu li fatimata zahra binti muhammadi waaw moom surtout yonente bi am na nag ñuy wax ñeneen parce que waa kër yonente bi dañ leen a sonal lool lool lool lool lool lool lool sax lool te ku mettiwul doo dób jullit maanaam ni leen effacé Karbala ñu leen effacé ci taarix bi ñuy taarix bi ñuy bi ñuy jàng waaw boo ci waxee asana ko seen xamatoo xamaatoo ci des te loolu ñàkkee na xam day ak manque ak manque la ci xam-xam waaye ku leen a xam tamit nga yëg ak yokk ci côté bëri bëri bëri moo tax dañ leen di ay ay tuuma yu méttee mét lañ leen di teg ci Karbala Imaam Hussein bi bu ba mu waree julli julli tisbaar dafa am ko ñëw ne noon bi day julli ñu ne ko ah, mu ne bu jullee ngeen ñàkk de mu ne ko ah, junni nit ñi ànd ak yéen xam nga tax ñu ànd ak da ngeen gëm noonu yéen Hussein ab yéefar la te bu jullee da nga xam li ngeen wax du dëgg xool ko toll ni surtout ngeen ngeen yéefar loolu moo topp si dinaa Cheikh am na ñun dañu am na baal ma ci kàddu gi sax am na ñun dañu ko tubal du jullit am na ñaan li ko yóbbu doon suppi xaalis Algérie moo tax moo tax ñu dàq ko mu daw dem fas tuuma yooyu moo tax waa kër yonte bi ñoom ñoom ñoom ñoom tuuma moom alal gor la ah, alal gor la li wér surtout bi yonte yàlla la moom sallallahu alayhi wa sallam yitteem moo doonoon xettali nit ñi xettali nit ñi mooy moo delloo leen seen borom subhanahu wa taala amul bayan yitteem moo doon xettali nit ñi te mooy delloo leen ci alxuraan ak sunna si bi leer dana leer moo tax bi mu ñëwee mu andi tari waaw bi muy ñëw booba Euh, kii bi euh, texte bi xool leen wax bi muy feeñ kaana tuxayyimu al mujtama mawjaatu min ad dayaa an naatij an al jahli summa an falsafati jahli alladi yaba al i'tiraafu bil jahli wa min samma tufsidu euh, nafsiyat jabaahir al amma ma ma bi mu feeñ booba dafa am benn climat boo xam ne réer réer bu mat sëkk moo am ci penc mi philosophie sax philosophie réer réer gi bañ sax ni moom réer la xam nga ku réer neex naa dimbali waaye ku réer te nanguwul di réer la mooy problème bi moom ci la ñëw nag daal ne foog ñu dellu ci yàlla subhanahu wa taala andi andi andi tarixa boobu nag jar naa taxaw jar naa taxaw ndax njaxas si da cee bari lool lool lool xam-xam dafay laaj amaana ilmiya loolu te intellectuel ñu ñu li ñuy wax mu leer ñu bu ñu jaawalee ñaar bokkuñu ak cëriñ ak ak tarixa bokkuñu de ak tarixa ak machixa bokkuñu mën nañoo ànd nag ah mën nañoo séparé wu waaw moo tax tarixa bi cheikh andi ñett ñaari wérdi ñoo ci nekk ñaar benn wérdi bi ñett ñu ko composé istixfar laa ilaha illa salatu ala nabi nga di ko def ci ñetti ñetti ñetti defin laazim suba ngoon wasifa ak xadrat juma ñett yi bu ci nekk laa ilaha illa laa la istixfar salatu ala nabi ñett yooyu benn génn ci ñëwoon beneen bi mooy al wirdu al quraan yi ko joxoon ni képp kuy taalibe da ngaa fexe ba semaine bi loo xat-xat da nga wàcc benn kaamil andi famille li shawqi famille li shawqi programme la ajjuma nga commencé fatiha ba nisaa yi jeex samedi nga commencé maayida ba taw ba jeex euh, dimanche nga commencé yunusa ba ba nax li jeex altine nga commencé euh, lisra ba ba nuur jeex talaata nga commencé shuara ba ba ba yaasin jeex arab commencé wasaafaati ba Mouhamed ba ba xojuraat jeex alxames ngay kale moom noonu moom famille li shawqi dafa bokk ci dafa bokk ci ci ci ci ci mbir mi Baye Niass daan def lu mu daan ci bëccëg bi bu guddee mën naa fi laak moom Baye Niass waaw kon lu ñaar yooyu la leneen nag li ñu wax yëpp nag bokk ci am na ko Seydina Cheikh jox tariqa bi mu liggéey ko weer ñëwaat ni ko dolli ma wasifa mi ngi dox yëpp mi ngi dox mu ne ko laa tazid ala hada walaw habba bu ci dolli benn pérékurus lim bi amul solo mais cofeel gi ci xol bi moo la yóbbu man ahabba wasala waaw te boo ci jàppee da ngay dem ndax salaasa tuharrifu naa biha iya kon yi ñuy wax ay tarbiya ak ay gis yàlla yooyu bokk ci bokk ci de bokku ci mu leer naññ kon lu moom lii la andi lu ci nekk alxuraan la ju leer naññ ay tarbiya waxuma nag waxuma nag wérul waxuma tarbiya wérul de waaye dama ne bokku ci Cheikh Ibrahima Saalih nee na ci tasawuf la bokk wala boog ñeen andi ko fi waaye moom lii la lii moom la la la Cheikh andi mu des ñu moom kon. Euh, tariqat yaa bi atbaaha ala an takuna sufuhu mustaqimatan li anna allah subhanahu wa taala la yanzuru ila safi l muwaj mooy yar nit ñi ba ñu jub xocc seen sàppe su jub ndax sàppe su dëng yàlla di ko xool ba te yërmande xayaatul muslimi salaa iyaaka naabudu wa iyaaka nastain ihdina siraat mustaqim dundug jullit bi lépp ak julli la ak julli waxin la siraat mustaqim mooy yoonu ñu baax ñi yoonu ñu sell yoonu gaay yàlla yi yoonu jihaadkat yu mag yi kon lii mooy xulaasatu li nga xamante ne moom mooy tarixa tijaani mu des al madrasatul mahdawiya le madiankisme Souleymane Dieng ñëw na ci lu bëree bëree bëri madiankisme moom moom maam Mouhamadou Ahmed Ba ci ñeenti kënu lañ ko tabax ñeenti kënu ñeent <laughs> ñeent aqidatul ashariya fiqul maliki tariqatul junaydi ak riwaayatu warsha xam nga junaydi mi junaydi mi moo xam ni mboolem turuq yi nekk Sénégal dañ ko mën a jàngat ni tariqal islam lañu te mu wér ñett la ñett tariqal qadiriya tariqal muridiya tariqal tijaaniya ñoom ñëpp branche lañ ko tariqal junaydi junaydi ñoom ñëpp branche madiankisme nag seen xaqida man xaqida ashariya lañ yoroon tënku ci fiqhul maliki yi moo tax Souleymane Dieng junju saddu zaraia xam nga sama projet waxoon na saddu zaraia mooy bu ñu nee toog ci siis bi dafa dafa dafa alaam Malick danaan la. dugg ci dugg ci bunt bi dafa dafa maa ngi fàttaliku <laughs> bu ñu nekkee kër yaaba kër soo ay nekkoon na fa ak Cheikh Mahamadou Sène ñu ngi laa ziar baax am na kër gu mag am na ko fa nekkoon daan tux mais ñun li ñu gëmloo suñu bopp yi mooy kër gi ku fa dugg ku fa dugg dem sawara <laughs> kër gi ku fa dugg dem sawara ndax daa am ku fay tux waaw loolu mooy maanaam teengal boobu ci nga xam sàmm googu ci diina waraam boobu xam ne bi mu ñu la nee fële moo araam fii nga yem Euh, Madianke mi ko jëlee ci fiqul Malik wax saddu zaraa saddu zaraa ñu jàng usul fiq bokk na ci nga xam ne Malik Malik Malik dafa jëfandikoo dafa jëfandikoo bu ñu nee dem Thiès daa dem Thiès daa daa daan daan kër ma daara kër ma daara moom xam ne doo doo jéggi doo doo jéggi kër ma daara ak ak euh, tariqatu xam ne bii nii tariqa tariqa tijaan tariqa parce que ñett tariqa yëpp man mu nekk liggéey naa daa am lu ñu bu nekk liggéey naa ci mais bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu siixa yi ñooy wute mais génn ñetti yi istixfaar laa ilaaha illallaah salaatu ala nabi waaw chazili amoon na Sénégal amoon na fii ci ci ci Sénégal parce que Abdul Qadir Kan almaam Abdul Qadir Kan mi wutoon Cerno Souleymane Baal Qadir chazili la woon am am na am nañu ko mais xamuñu fii ci Sénégal chaz euh, euh, gannaaw moom xamaa dañu fi keneen mais daal yi fi gën a fës te te te te te doon ci lislaam bu wér moom ñett yooyu la Qadiriya Tijaaniya ak tamit Muridiya Mahdi euh, kii nag almahdawiya nag du tariqa du diine mais benn branche benn école la ci almadrasatul mahdawiya comme ni ko professeur Souleymane joxe maam Amari Ngoné Ndak moom moo ko fii moom moom moo moom mooy continuité bi parce que bi bi demee ci jihaad yi ba jihaad bi waaye parce que imaama imaama lu am solo la jar na jàngal nag jar na jàngal imaama mi ngi amee ci tansib wala tansis tansib tansis mooy texte moo ñëw ni kii mooy imaam tansib mooy ki ko doon samp la maam Cheikhou Amadou moo sax maam Amadou nag gannaaw ba mu xoolee parce que boo xoolee Thierno Souleymane Baal bi mi mi dem am na dénkaane yu mu dénkaane woon bu ngeen nee tànn imaam na mel nii yooya Thierno Souleymane Baal andi ko mais ci diine ji la bokk ci lislaam bi la bokk lislaam moo tànnoon kilifa yooyu bi mu xoolee ki mu gën a nekk mooy maam Amadou Ngoné mu def listixaar man maam Amadou Ngoné Ndak ma ma ngi naan danaa def listixaar mu diisoo ñu ma la waxtaanal ñëpp joxañ maam Amadou Ngoné Ndak mu ne ko nag yow la yow la ñuy laaj njaboot gi yamal xiyaam parce que yamal ñaar ñaari xisaab ñoo am xisaab collectif xisaab jamaa yi ak xisaab yawma nad'u kulla unaasin bi imaamihim ki leen jiite yow na kii te la ko joxe nag euh, liggéey bi ni ko continuer continuer kii bi moom nag maa di maa ci andiwaat nag yeneen yeneen yeneen yeneen maanaam tatwiir ko développé ko mu gën a kii bi mu andee al ilmu al amal ak ibada ñett yooyu ñetti keneen yooyu jàng ba xam. ndax da ngay dégg sax ñaan mbir mi newul ci xam-xam kon ci lu mu nekk ci réer day foog foog nga jàng ba xam maanaam jullit bi moom lu mu gàtt gàtt war naa jàng ba xam faratey diineem comme ni ko la xadra yi waxee sa pas-pas wér sa faratey diine wér léegi na xóotal njàng mi rek daa am ñu mu war parce que euh, su surtout ma ko xam ne xale yi moom xale bi moom fii ak mu am fukki at ak benn daa war a jàng bu ñu demee ba am 16 ans nag dinañ xam ci biir ñooñu xale yooyu ñan ñoo mën a continuer nag dem ca kaw am ay doctorat way am fa gën a kawe minimum da def 10 ans ci xam-xam moo tax ma ngi daan laxas 10 ans yoo xamante ne bii ni 10 heures de temps de travail par jour ngay def a a wax ci diine lu ñu mën a dégg minimum waaw moom ma ngi daan def ñu daan laxas ba mokkale alxuraan ba mbeq ba alxuraan ji dëkk nga dem fa la jàng fiq boo seex seex suñu seex mi def na ko boo jógee fiq dem fa la jàng fa luxa dem fa la jàng bayaan ba kii boo kii peut di liggéey di ñaq di dunde di liggéey parce que euh, euh, alxuraan bu waxee tibb lew mooy bi nga ñaq li nga ñaq dunde ko moo gën li nga xamante ne bi nii euh, dañ la ko maanaam ku dund ñaq jàmbur ku dund ñaq jàmbur baaxul maanaam du du góor dëgg du lekk des góor dëgg du lekk des moo tax góor du xëy tëdd boo xëyee tëdd nag man nga añ mais desu jàmbur nga añe des nga añee waaye di ngaa war a xëy moo tax yonent yëpp dañu amoon métier yonent yàlla Ibrahima maçon la woon moo tabax Kaaba gi yonent noo faj na doon na médecin fajkat nga dégg nga dégg nga yonent yàlla Daawud ab tëgg la woon wa allannaa lahul sàmm na commerce commerce sax ci la ci la euh, moo tax moo tax moo tax nit dafa daa war a am daa war a am di ci di ci di ci mën a waaw Idrissa ab tailleur la woon suñu seexoon ba pare nag al ibaada mooy jaamu yàlla ndax jaamu yàlla nag moom moo ñu fi andi. ñetti kene yooyu ci la maa amoon nga tabax li ñuy wooye li ñuy wooye euh, ba léegi nag ñu ñu ñëw ci tarbiya bi tarbiya mooy mooy mooy sinaatu rajul sinaatu maanaam forger un maanaam tabax nit tabax nit tabaxin bi euh, am yu def ci moom dafa am juróom yoo xamante ne bi nii ku jàng dëgg-dëgg xool mag ñi ni ñuy doxale ak ni ñu kii ku ñuy tarbiyee juróom yi lañ bëgg mu nekk ci yow jëmm ci comme ne tàngoor jëmm ci sawal ba ci njëkk mooy mahabbatullahi wa rasuli bëgg yàlla ak yonenteem yuhibbuhum wa yuhibbuna bëgg yàlla bëgg goo xamante ne mi ne yàlla moom loolu la ko nar a xaaj nga bàyyi ko fa dem du bàyyi du yaay du doom du mag du alal nañ ñëw ak yonenteem boobu moom mooy yuhibbuhum wa yuhibbuna boobu boobu boobu ab liggéey la laaj ci nit ki ar rahmatu wa tawaadon lil mu'min maanaam am yërmande lool ci ñi nangul yàlla jullit yi am woyof yàlla xool yonente bi ma ko wax fit janaaxak li man ittabaaka minal ñii topp ci ginnaaw di ay jullit na nga wàcc sa bopp ci seen kanam kon ab jullit day woyof ci kanamu jullit dëkk day am yërëmaande ñoom yàlla bi wax ci sahabatul kiram ridwanullahi alayhim lañu ruhamaa u baynahum ñu yërëmante seen biir lañu kon yërëmante googu tamit tarbiya dafa koy def mag ñi boo ñëwee ci biir ci biir ci biir ci biir kii bi ci biir euh, ci biir euh, jullit yi ni ngi leen di jaxasee ni ngeen di nekkee ni ngeen di kii ak noonu ni ngeen di mooy mooy mooy mooy mooy tarbiya al izzatu wal xilzatu alal kaafir diiñ tee lool ñagas lool ci kanamu yéefar bi parce que lislaam bañ ak bëgg la lislaam bañ ak bëgg la bëgg yonent bi bëgg yonente yi bëgg ñu baax ñu lool noonu ngay bañ a seytaane gaayam seytaane moom ku ko bëgg moom <laughs> loo ko bëggee ku yàlla waaw dégg nga te muy noonu inna seytaane la ko ma adduwun yàlla ko wax seen noonu la fattaxisuhu aduwan al amru lil wujub na ngeen ko jàppe ab noon noon kay mooy ki ngay bañ kon seytaane ak lépp lu laal ci moom rek da koy bañ kon bu ñu bu ñu dee tabax ci tar yi ñu yar ci yow bëgg bëgg ñu baax ñi sopp ñu baax ñi dégg di màggal ñu baax ñi di woyof ci kanamu ñu baax ñi waaye di bañ tamit ñu bon ñi ndax dañoo lànkal yàlla subhanahu wa taala bi ñu des al jihad al al xayaatu wal mawtu ala xatti al jihaadi fi sabilillah mooy sa dund gi yëpp nga def ko ci kaw jihaad jihaad nag daa bari ay forme bari na lool du si rek mais li ngeen def ni sax jihaad la waaw jihaad mooy nga sa effort nga def ko ci liy dundul diine juróomeel mooy bañ a ragal kenn ku dul yàlla ku dul yàlla ku yàlla doo ko ragal ku dul yàlla gis nga gis nga bu dàmmeel doon ñëw sax du yàlla du gannaaw boobu da nga jëkk rek euh, fëgg fëgg nënd li dàmmeel da nga ñëw ku fanaan dib jaam ku fanaan dib jaam <laughs> nga gis ñu dàq ñaar ñu bokk ndey ak baay ñu jàpp kenn ki kenn ki raw kenn jàpp di bi jaam foofu injustice foofu foofu mën a yem booba ceddo yi nañ daw ceddo xool daaw dem ba daaw dem ba mi mi mi ngi mille euh, six cent mille six cent quarante mille six cent quarante six daaw dem ba da doon buur araamal xorom maanaam tal mi xa temps li àndal mi xaasoon lil umara nee na xorom moom buur yeeg moom ba kenn xorom araamal fu dutu fuddut bu kenn fuddut ndax dafa neex buur yee ko moom <laughs> xoolal araamal araamal sol tubéy waaw mag ji ko màgget ñu gën a dëkk bi xale yi gay ndey lekk la bàyyi ma ci kàddu gi de araamal takk takk takk ab jànq léegi bàyyi ma ci dëkk bi ku am ci dëkk bi ab jànq boo bëgg a maye da nga da nga yónnee ci kër buur ba amaa fa ay fan mu doo a nga maye ca non cadda googu cadda googu loolu moo tax sax amatu sax amatu jihaat moo tax ma ngi jihaat mag ñaar lañu xeexal mooy tubaab ak ceddo yi dañu xeex ndax mon googu nagu nit googu ñu mu mu mu demoon waaw ragal ñu kenn yàlla léegi nag tarbiya boobu bu defee ci bëgg yàlla def ci yow woyof ak yërmande ci jullit yi def ci yow dignité diiñ ci kanamu yéefari def ci yow jihaad nga nekk jihaad kat dégg nga baat bi bu ci nekk rek ak tem la dégg def ci yow ñeme fit ragaloo kenn ku dul yàlla loolu lan lay jur la muy njëkk jël mooy orma baatu orma nag lu jar taxaw la orma lu muy firi am nañu ko jàpp rek suñu maxaana fon fon fon loxo ca la lu tuuti la ca lu tuutee tuutee tuuti la ca waaye orma sole naa xaw naa waaye lu tuuti la ca bala ñoo ñëw ci baatu orma ba xam na la firi nañ taxaw ci tomb bi ñuy wax tooñ tooñ mooy alak doomu aadama yàlla ci alxuraan karim nee na tooñkat moom da ko dama da koy alak lannahu li kan na zalimin yàlla ko wax noonu gi mënul tawkit astaqila man yàlla mu màgg mi danaa alak tooñkat yi mu ne tooñkat yi wala wa anna li kulli nafsin zalamat maa ma maa fi l ardi laftarat bi maa googu mooy ismu annabi wala wa anna maa fi l ardi kulliha min xayratin wa manaabi wa sawraat li nafsin zalima laftarat bi tooñkat bu ñëwee yawmal qiyaam indaale lu toll ni ci àdduna bi ci koom-koom ak alal yëpp mënu koo jot dégg nga nee na ñoom tooñkat yi boo demee jahannama am nañ fa fu ñu tëdd lahum min jahannama mihaad min fawqihim xawaash am na mbalaan mbalaan ma ñu fay sàngoo lépp sawara la kadalika najzi zalimin dégg nga euh, tooñ googu nag orma moo lay protéger ba doo ci tàbbi orma protection la mooy aar nit ki moo koy blende ba du tàgg ba du tàbbi ci tooñ ñeenti xeeti tooñ dañu am ñeenti xeeti tooñ tooñ sa bopp xam nga ci alxuraan yàlla bi mu wax ci yonte Ibrahima alayhi salaam ci suratu waaw ni mu ko mayee Ismaïl Ismaïl dem ba ki bu dolli ko Isxaaq ba muy tëj daf ne min zurriyatihima Ismaïl Isxaaq muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin kon tooñ sa bopp nit day nit day tooñ boppam naka lay tooñi boppam parce que dafa am ñett yàlla def ci yow benn bu nekk am àq ci yow yaram bi daa am àq ci yow da nga kaa war a toppatoo sëñ sëñ seex doxoon na dëgg nee na sa tànk bu xaree sax dinañ la xisaab lu tax muy xar ndax bu bu sa sa nakk di xar dégg nga toppatoo saw yaram di lekk lu baax di lekk lu lew fal yanzur ayuha azka taaman lu la gën a sell sam xel daa am ci yow xel mi daa war a dund lu ko moo tax yonente bi ni minal mahdi daa am àq ci yow mooy leer ci yàlla leer di dund xool majalis naan su daa di wax da ngeen ma majalis saqaawa ndax ndax day gaañu ruux dégg ñett yooyu nag boo ci boo ci joxul àqam rek kaa tooñ muy benn ñaari wax mooy daa am jumtukaay yu yàlla jox am lu mu la ca sant jumtukaay jumtukaay ba nag ban la làmmañ ca la bët ca la nopp ca la euh, loxo ca la ak tànk ak biir ya ca des bu ci nekk tamit boo jëfee lu yëllul ak la la tax ñu jox la ko yaa tooñ xoolal xoolal alxuraan alxuraan làmmañ mu ci gën a garaaw làmmañ danga wax benn wax rek gaañ sa bopp wala nga gaañ ab jàmbur xoolal juif yi dañuy wax benn wax gaañu yaxet yàlla ñu looy noo bi maa qaalu wal wal ma ma ma amilu bi ma qaalu kon kàddu moo leen gaañ tarbiya boo xoolee mag ñi ni yaree nit bu ñu la yaree ba noppi da ngay xam ni ngay waxee yan wax mooy yell ci yàlla yan wax mooy yell ci yonent bi looy waxee ngi baax ñi xam nga euh, maa ngi dégg benn ustaaz mu wax ni baal leen ma ci kàddu gi yàlla am na lu mu mënul ñu ne ko nan la mu ni nga def lu baax mu fay la ñaawteef dëgg la mais wax yi ñu baaxul kenn du waxe noonu ci yàlla yàlla am na lu moomul kenn du ko wax parce que yàlla am na mooy également yàlla am na lu mu tëlee te tëlee ak manqué la te askanal yàlla ak manqué nan la dégg nga comme moom imaam Alxasaali ci taxawu de falasifa bi philosophie ne allahu laa yaalamu al juziyat xam Aristo ma ko waxoon yàlla mu bind adduna bi rek wa harrakahu abra sunan wa nawaamir suma taraka yàlla def rek ay luwaa rek ñu départ mu baa di bàyyi comme borom appareil bi professeur Dia moo ko moom appareil bële moo ko kan moo ko liggéey benn sàppane léegi sàppane pare na ci professeur mooy mooy mooy def Coran mooy defar mooy kii nangam nangam adduna bi noonu la mel ñoom tele yàlla moom yu dabbirul amra mina samaa'i ilal ard imaam Xasaali nee nag boo yàlla xamul mooy yàlla kon dafa réere te ak manqué la ask la kii ni nga nga dégg tamit ñu naan yàlla bu xebee diine Sénégal ñàkk astaghfir yàlla du ñàkk ñàkk ak manqué la kon tarbiya bokk na ci li muy def mooy da nga xam ni ngay waxee loo wax day yell waaw boo nee yàlla commande la yàlla commande la du tooñ laa yazlimu misqaala zarra zarra mooy loo xam ne dafa tuuti ba bët mënu koo gis dégg wala yuzlamuna naqiira naqiir moo gën a tuuti zarra téeméeri yoon fatila fatil moo gën a euh, moo gën a moo gën a tuuti euh, zarra téeméeri millions ngi yoon dégg kon yàlla borom subhanahu wa taala du du du du du tooñ kon kon nit ki dana tooñ boppam ci ci ci euh, ci ci wax tooñ sa moroomum nit allan yadlimuna naas tooñ la ak jëfandikoo ci loo moomul wala taqraba hadihi shajara fa takuna min azalimin bu leen jigee garab gi ngeen di tooñ gis nga ku ñu tarbiya bu ñëwoon fii dugg ci saal bi bëgg a benn lettaram fekk fi big te xamul ko moom du laal big bi fekk fi big bi nii même bu ko leeree ne Mouhamed Cissé moo ko moom day bàyyi bu mu ñëw mu ne ko mën nga maa may ci big bi ma kiyee ma waaw ndax tasarruf yi maa laa tamlik zulmun ndax ndax ndax ndax maanu waaw ndax ndax ku ñu tabee day sax sàpp yàlla su yàlla mooy de nuru yàlla nuru yàlla ga mooy tax mooy tax mooy tax mooy tax du tooñ léegi nag euh, kon kon orma mooy lan mooy lay aar ba doo tooñ sa bopp doo tooñ sa borom mooy euh, walam yalbisu imaana bi zulmin ñu kan moon inna shirka la zulmun azim doo tooñ sa borom doo tooñ sa bopp doo tooñ sa moroom doo doo jëfandikoo loo moomul am na benn góor gi naa wax ne si Ibrahima Seck da kaan gerte bu gerte gi ñoree buy dem gerte gerteeg boppam ci lay duy xaaju saako ndax da ci yéey waaye gerte gi rek du ko laal ndax moomu ko xoolal xoolal maandute ko mag mag ñi mag ñi mag ñi ñu maante woon suñu ma saxir loo ci kokki dañuy nett bi mu nekk ay daara ji yërim xotteem ñu bëgg ko ñaw di ab pusa am ko ne eh, am na pusa bu nekkoon fii de bu ma for mu ne ndax nuru naa la koy jëfandikoo lu ñu for xoolal maandute kooku maanaam lañu la ñu for xamul boroom te moomu ko kon du du du du jëfandikoo bi ñu des tarbiya dana ko def mooy alit ni naan wa sakina maanaam tëyit ilaahi yàlla ndëgëral yàlla ak tëyitul ilaahi ndax ba bëggee yàlla yàlla moo ne ci alxuraanu karim <laughs> yàlla moo ko wax de ñi nga xamante ne bi nii yàlla mooy priorité ci ñoom bu seen doom nañu tere ñu bakko seen bàyyi dox seen diggante ak yàlla seen yaay àdduna ak lañ ulaayka kataba fi qulubihim imaana wa ayyadahum bi ruuxin minhu tëyit ilaahi kon kuñ tarbiya def am ndëgëral yàlla lu mu dugg day sotti lu mu dugg dee sotti ndax doole yàlla ci lay demee bi ñu des nag tarbiya bu ñëpp tarbiya ñëpp am orma mu mel mel ni ñu war a mel pénc mi doon benn ndax dañuy ngoy ci buumu yàlla gi subhanahu wa taala te buñ ci ngoyee ñun ñëpp dañuy am ngërëmal yàlla te ngërëmal yàlla ñu ñëpp ñu ñëpp loolu loolu la ñuy loolu la loolu la wut mu des nag tawsiyaat yi bokk na ci ñu gën a jàngaat bu baax a baax a baax a baax méthode du alquran ak sunna ci jar bakkan ci defar ruux ci jar ci ci ci yar ak jikko tax ci jàngat boobu ci lañu mën a nekk li ñu war a nekk ñaareelu tamit jihaat fokk ñu bàyyi ko xel jihaat wulul taxaw nekkul loo xamante ne dafay taxaw façon yi nag ñoom ñoo bari fi mu nii li ñu war a taxaw ñun ñu dëgg-dëgg mooy jihaat ci jàng parce que jàng jàng dëgg-dëgg renaissance scientifique am cana ba te loolu njàng mu wér a wér a wér macha daara yi si xam xamante si si ñu ci bu rëy rëy rëy waaye nañ gën a lu ñu def rek nañ koy xeeb ndax li yëkkati ab dëkk li yëkkati aw xeet moom mooy xam-xam xam-xam te li koy daaneel tamit moom mooy yàlla na lool lool lool lool lool lool lool ngeen taxawal bibliothèque bu ngandee soixante mille volumes ci kaw jumaa ji boo dee mën na mën na war a ci kaw jumaa ji bibliothèque la pourquoi pas daari ma amari ma ndaa kii te ni ñu def ba ni ñu lancé Mokari ba ñu ko lancé woon rek fii ñetti at bi taxaw xam la xam ne day fonctionné xalifa bu ñëw bu nekk tamit am am am am euh, benn kii kii euh, benn benn euh, waaw bibliothèque ak kii nu benn centre de recherche de documentation xam ne xalifa bu nekk bi nga fi toogee li nga réalisé dañ mën a bind document euh, kii def ko document teg xanaa bi koo soxla boo boo ñëwee boo boo ñëwee boo ñëwee boo ñëwee am ci euh, ñu gën a doon benn tamit yal na boo defal ñun ñëpp walhamdulilah rabbil alamin jazakumullahu xayran jërëjëf fi toog ñëpp di leen ziar di nuyu ñoom oustaz Amadou Matar fi toog tey li leen fi indi ñu yaatal li nga xam te ne moom moo di euh, lu yëkkati Thiénaba ci wàllu Mame Omar Ngoné Ndak. question bi ma doon laaj moom mooy ci wàllu tarixa tijaan bi mu doon wax sànq nii léegi dañoo su ma xoolee ci ci li ma xam ci sama xam-xam li ma xam souvent dañ naan euh, Tiwaawoon bu ñuy wax dañ naan dañ naan euh, ñu bari télé yeeg yépp sax dañ naan bu ñuy bu ñuy wax dañ naan diw comme ça sëriñ sëriñu Tiwaawoon bi toog tey ji dañ naan mooy mooy xalifa général kullu tijaan loolu la ñuy wax léegi nag loolu laa bëgg nag tey ji nan nan la ñuy def ba véritablement ñu wax que ni tarixatu tijaan yi suñ koy wax fii ci Sénégal wala ci àdduna bi yépp ñu feeñal que ni fësal que ni dëgg dëgg dëgg maam Amary Ndaak wala Canaba ñoom ñooy euh, xalifa Ndar ku lu tijaan loolu laa bëgg tey ji moom la kii waxtaan am solo bi di kilifa yi fi teew yëpp macha allah bon man sama question euh, yaakaar naa day xaw a niroog aussi benn. perspective bu may dégager selon li oustaz waxtaane sànq ci wàllum tarbiya tarbiya bi mu wax léegi man dama gisoon ne maanaam jeune bi nga xamante ni tarbiya nañ ko maanaam yar nañ ko ba jàngal ko il est bien éveillé éveillé et éduqué léegi pourquoi pas ñu intégrer ko ci gestion dëkk bi maanaam dëkk bi ni muy doxee euh, parce que dañoo toll ci monde boo xamante ni daal mondial mondialisme léegi est-ce que bu ñu intégré jeune boobu noonu Euh, mbir yi ñuy doxal dina gën a méngoo ak jamono ba fépp fu doomu aadama nekk ñu fekk ko ci logique bi mu nekk ak ci euh, ni jamono tëddee ba man koo jénn ci lépp loo xamante ni aw ñaawteef la wala lépp loo xam ne day day day day gàkkal diine daal loolu moo nekkoon sama question ci wàllum intégration. wa rahmatullahi wa barakaatuhu. di nuyu te di jaajëfal suñu oustaz Amadou Makhtar Diop. xamuñu ko nii nii waaye nag miin nañ ko ndax yàgg nañ koo suivre. dañ koy topp yal na yàlla sàmm ko te mottali yéeneem moom ak ñu mel ni professeur Souleymane Dia ak ñu mel ni ñoom tonton Seexu daanaka dañuy dimbali léeg-léeg si nit ñi bu ñu laajee histoire maam Amary Ndack parce que daanaka ñun mën nañ ni ñoom ñooy suñuy delluwaay xam naa su ma déggee li nga xamee ni jàngale na ko ci thème bi li nga xam ni wax na ko muy wàllu suufi muy tasawuf moom duma ci sori parce que ñun ñëpp yaakaar naa ni am na luñ ci xam waaye da cee wax loo nga xam ni dafa ma intéressé parce que dafa am solo ci fi ma jëm mooy lim lim li mu wax ne ilmun li islaaxil kull maanaam mu ni euh, mën nañ ni aar la boo nga xamee ni dina permettre nit ki mu mën a wut solution ci bépp problème te ñun ñu yëg ni dañoo am problème yu rëy ba tax ñu taxawal lii beneen bi am ñoo xam ni am loo xam ni jàngale na ko waaye am ñu wax ci boroom xam-xam yi ne ak tasawuf taa ut tuqaa saa u safa waawul wafa faawul futuwati mu xamal ñu ni nag mag ñi li nga xam ne bokkoon na ci li liggéey nañ ko ci wàllu tarbiya muy fexewoon nañ ba jiital ragal yàlla googu ak sell gi mu jàngale ko ci biiram muy euh, kullu baatinin yuxaalifu sariya fa huwa baatil la mag ñi li woon bëri na loo nga xam ni bu ñëwee yowmal qiyaam ki koy indi mën naa jàpp ni baatin la te fekk baatin la kon fi may dëgg mooy ñu delluwaat ci tarbiya bi nga xamee ni mag ñi amoon indi woon nañ ko jaarale ko ci wàllu soufisme te ma xool gis ni problème bi ñu am yépp ñun mooy problème d'organisation problème bi ñu am yépp loolu la après bu ñu defee synthèse si li professeur Souleymane Dia jàngale ak li Amadou Makhtar jàngale ak ñun fi ñu toll ci sam bopp xëy na nag am na ñu romb foofu da ngay yëg ni benn problème lañ am muy problème d'organisation. lan moo tax buñ ñi ma woon bindal ci réalisation yu bàyyi Alpha Mamadou wala yu Baye Cheikh Tidiane wala yu keneen ak keneen ak keneen damay am problème ndax lan bu ma Souleymane Dia waxul lii Amadou Makhtar wax ma lii aw ma delluwaay. loolu lan moo ñu ko yóbbee c'est parce que amuñu comité scientifique bu dëgër boo nga xamee ni même xalifa bu fi ñëw da ngay ànd ak comité boobu pour ñu am foo nga xamee ni dañ ciy dox ci wàllu scientifique. Wuro Mahdi yu man ak sama moroom bari na ñoo nga xamee ni teguñu fa seen tànk ak yeneen ak yeneen soxna si laaj na question bi mu ni lan moo tax ñu bari dañ naan xalifa général kullu Tidiane ñu tudd Tiwaawan. loolu moom Serigne Cheikh dàkkoon na ko parce que nee na xalifa général kullu Tidiane balaa kenn na wax da ngay tàggu waa Canaba tàggu waa tàggu waa Fuuta tàggu feneen ak feneen bokk na ci firne yi mooy Abdou Karim Diallo keroog bi mu jéggee dex gi ñëw Mouhamad Hamme Ba moom la moom la dajel euh, wala euh, ki sant Fall Abdou Karim Diallo ak Cheikh Omar Foutiou Tall ah, Maodoul Fall bi mu jéggee géej gi Abdou Karim Diallo la dajel ak Cheikh Omar Foutiou taal kenn ki mu ne ko mën naa laa jox keneen ki mu ne ko mënuma laa jox parce que sa sëriñ dangay dem dajeek moom kon li ngay yëg mooy ak tijaaniya ci wàllu canaba maanaam drapeau bu rëy la mais li ñu ci daal ba loolu am mooy manque d'organisation bi kon yaakaar naa ni faw rek ñu taxawaat buñ jugee fii ba ñëw ci xam naa dama koy dagg parce que mel na ni temps bi jot na waaye kon ma bàyyi fii euh, benn question rek mooy principe yi nga xamee ni mag ñi bàyyi nañ ko fi ci wàllu yar ci wàllu yar maanaam yan ngeen ñu ci mën a wax wax goo nga xam ne bu ñu demoon doon jàngal suñuy xale dinañ leen mën a tuddal principe bi principe bi principe bi beneen bi mooy selon li nga xam ne professeur Souleymane Dia jàngale na ko sànq Oustaz Amadou saa jàngale ko est-ce que canaba ñàkk daara boo nga xamee ni dañ koy askanelee canaba ci boppam moo xam majaalis lay doon wala lu mu mën a doon est-ce que loolu bokkul itam ci problème yi nga xamee ni moo ñu yóbbee jafe-jafe yi ñu nekkee. conférencier yi nañ ko. waaw léegi damaa bëggoon a aussi rebondir un peu ci origine du tijanisme par rapport ak pont bi moom ak islaam par exemple aussi la question yi que sànq dafa wax ni euh, tijanisme daanaka ci ay ci ay particularité mooy weer bi mooy istax euh, istighfar ak laa ilaha illallah ak salaatu ala nabi léegi damaa bëggoon a xam est-ce que il y a d'autres caractéristiques yoo xamante ni day définir le tijanisme par exemple des caractéristiques ou des pratiques parce que aujourd'hui gis nañ ni par exemple xam nga mbir moom daanaka bala nga koo xam rek dangay dellu ca ca na mu juddoo ak fa nga xamante ni foofu la sosoo te man considération bi mu ca am mooy école la boo xamante ni dañ ciy jàngee pour xam suñu diine en général mais est-ce que dafa am des caractéristiques ou d'autres pratiques yoo xamante ni dañu koy xamal léegi ci jamono ji à travers les réseaux sociaux ay yeneen fii yoo xamante ni dañ ciy dem léegi daal loolu moo doon question bi maa ngi leen di gërëm parce que nag vraiment am na njariñ am na solo lool. encouragé bu baax di ñaan yàlla mu gën koo dëgëral ndax lu am solo la xam naa ci fi Oustaz Modou Makhtar doon waxee ci wàllu tarixa tijaan wax ni ci ñett ñoo ko composé muy wadifa ak lazim ak xadaratul juma ba wax ni ñett yooyu tamit parce que génnul tamit ñett yi mooy istixfar salaatu ala nabi ak laa ilaha illallah mu wax ni yooyu mooy tariixa bi mu mel ni kon dafa mel ni am na ñoo xam dañoo jàpp ni leneen daa rax ci tariixa bi lu dul loolu ndax sama classe gi wala ñi nga xam ni soreeguñ lool da ngay gis ndaw lu ñëw di la laaj leneen ci tariixa bi loo xam day jàpp ni moo koy gaaw a yóbbu ci boroomam subhaanahu wa taala te dafa mel ni ñett yooyu mooy ñett yi nga xam ne mooy yi nit ki war a jàpp te waru koo baax nga xam ni moom moom yu mu war a soxoo la léegi nag xëy na léeg-léeg ci àdduna bi ni mu doxee nit ki day gis jàpp ni kurus kurus gu toll nàngam wala nangam mooy tax moom mu mën a jot ci li tarixa bi tëral wala déet pare loolu tamit xam naa ni boo ñëwee ci question yi nga gën ñu jee waatal xel ci tarixa bi ñu xam ni ñett yooyu bu ci nekk dafa am ñu xam ni tamit tarixa bi ci ñun ndaw ñi ñu xam ne am na fiqhu tarixa yoo xam ni moo lay jàngal tarixa bi ci ni nga ko war a dundee ndax tamit boo ko jëlee te dunde woo ko noonu tamit comme règlement yi am ci diine ci ci diine noonu la amee ci tarixa bi loo tamit ñu ndaw ñi ñu bàyyiwaat ko xel bu baax te loolu yëpp yi ñu koy indil mooy tarbiya comme ni nga ko waxee sànq surtout tarbiya yoo xam day jógewaat ci mag ñi ndax du xam-xam moom xale yaa ngi ciy góorgóorlu seen kéemtalaay gàttal waaye yor yar ak orma comme ni ko Oustaz waxee dañuy jàpp ni summi mbaxana loolu summi daal te fekk loolu lu ci ndaw la loolu tamit bari na ñun ndaw ñum gàllankoor da gis koo xam mën na laa sumil mbaxana sumil la daal waaye bu wéetee ci yow mën naa wax ci yow loo xam ne mën na ko gaañ moom te loolu mi ñuy dal ñun ndaw ñi nag lu baree bari ci ay jotaay wala ci ay ay werante yoo xam ne day gaañ te am na kàddu koo xam ne nañ ma baal sama wayjur damaa wasa toog ak samay morom di waxtaan ngeen baal ma booba sëñ baara ci la génn àdduna sëñ moo nekkoon xalifa général murid ki ma toowal di wax ba ba tudd ni baara de lekk nangam ba génn àdduna sama papa fi mu ko dégg bàyyi coon dafa tudd yàlla ni ko diw kaay mun ko kooku ngay tudd turam googu nga tudd dong te tegoo ci dara ñàkk ko ormaan man na laa alag noonu la ko ko waxee te loolu ñu bàyyi ko xel ni léeg kàddu mën nañoo alak ci ci ci loolu ba ja des tamit mooy ci wàllu tarbiya dafa am loo xam dafa maa dal ci sama diggante ak sëñ yaaba ma amul maxtaar ci bi may nekk kër yaaba ci ci li mu wax ni boo tegoon fii big bi ci mag ñi bu ñu lay yar wala ñu lay tarbiya boo fekkee big bi soo ñëw cee bind te xaar ba waa ji ñëw ngeen ko bind naa ci waaye da xaar ba mu ñëw ngeen ko ma bind yàlla def bi ma yóoga ñëw maa ko daan defaral néegam bi may bu ma ñëwee nag daf may defarloo néeg bi waaye day jël dara ron ko ron ko ci ci sijaare bi wala dara ni ma defaral nangam te booy defar na nga yëkkati sijaare bi def nangam man nag su ma ñëwee gis fa dara du ma ni ko gis naa fa du ko déplacé tamit dama defar pare bàyyiwaat ko foofu ba mu nattuma ci ba ay yoon mu woo ma ni ma xanaa bi ngay defar nangam fekkoo nangam fekkoo fi nangam man ko ah kay mun ma lu tax jëloo ko man ko damaa xam ne yow mi ko fi teg nga ko. boobaa li taxoon ma man koo xam mooy dafa am lu jiitu woon ci man njëkk may dem ndax sama waajur dafa maa mas a nettali ni ma waajuram da koo mas a yónni benn dëkk yónni ko xaalis jox ko paasu dem rek te jox ko paasu retour. bi mu demee ba jël xaalis ba te loolu ëpp na fi ak Thiès bi demee ba jël xaalis ba paasu ji dafa dox yàgg ci yoon yu nag mu ñëw góor gi ni koy lu tax nga yeex mun ko damaa dox mun ko lu tax mun ko damaa amul woon paas mun ko xaalis bi ñu la jox xanaa joxuñu la ko mun ko waxuma woon ma paas yi da nga maa joxoon paas yu dem rek loolu nag bi ma koy wax dama guma daara moo tax ma demee ma gis loolu ma jàpp ni ab tarbiya bu ñu doon la loolu tamit ñun ndaw ñëpp ñu bàyyi xel léeg-léeg nit di la testé ci loo xam ne day xool sa tarbiya fu mu toll te tarbiya rek moo ñu dimbali ci loolu salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di nuyuwaat di leen ziyaare bu baax a baax di nuyu ñi nga xamante ne bi ñoo organiser programme bi waaye aussi di jëfal ñi nga xamante ne bi ñoo doon def euh, conférence bi professeur Souleymane Dia ak euh, oustaz Mouhamed Mokhtar Diop moom mi nga xamante ne bi ci moom la ñu jàngee di ko jaajëfal bu baax a baax a baax waxtaan bi am na solo te yaakaar naa ñun ñëpp jëriñu nañ ci man nag li ma doon euh, intervenir du question mais benn temps la maanaam benn intervention boo xam dama ko bëgg a ci waxtaan bi ndax bu ñu sukkandikoo ci li professeur Souleymane Dia dañ waxtaane ak li oustaz Mouhamed Mokhtar Diop dañ waxtaane yaakaar naa soreewuñu ndax dafa mel ni kee daf ñëw tàllal yoon bi maanaam nañu yoon baa ngi nii fii ngeen war a nekk oustaz daanaka maam mu ñëw daañu wax ñun naka lañ ci war a nekkee kon ñaar yi soreewuñu kii dafa laa wa dafa mel ni kii dafa laa jox caabi ji ki ne la bunt bi yi nga war a tijji te boo duggee nii nga fiy toogee bu ñu xoolee ci ni mu doon ci euh, fi mu doon waxtaan ci professeur Souleymane Dia euh, ñëw na ci taarixu Canaba ci euh, maam Ahmad Ndak Seck ak dëkk bi ni mu demee ni nga ko sosee ak tariqa bi yépp oustaz ñëw waxtaan ci wàllum tarbiya mu wax ni tamit dafa nekk loo xamante ne bi obligation la ci nit ki maanaam cheikhun waajib la boo xamante ne bi nit ku nekk da nga ko war a def te nag tarbiya ci nu ko expliqué ak ci nu ko professeur expliqué dafa am lu ko jiitu luy baas ci nit mooy jàng maanaam dafa nekk mbir moo xamante ne bi tey jii kii jëfandikoo wàllum euh, tasawuf te jàngul mën naa réer lu bari waaye tamit ki jàng ba am xam-xam te amul tasawuf tamit lu bare bare bare day gàllankoor digganteem ak boroomam kon dafa nekk ñaari mbir yoo xamante ne bi benn mënu cee ñàkk ci dundu nit ki te ni ma ni ma daan dégg mu koy faral di waxee da daan faral di wax naan ci li ñu jëlee ci imam ali mu ne may daa nukumul awwal anfusukum maanaam nit ku nekk terrain bi nga xamante ne bi ci nga war a njëkk liggéey mooy sa bopp ndax tey mënoo ñëw digle cangaay te yow fekk setoo bala ngaa wax kenn ne ko defal leen day fekk yow la nga koy digal jiitu ci yow bu la yàlla jàppaleen nag boole laak ndig koo xamante ni moo la teg ci yoon teg la ci yoon tasawuf jëmale la ci sa boroom ba nga dem ba ràññee lu bare bare bari ba xam bu boobaa nag li lay war mooy nga dimbali ñeneen ba yoon bi nga jaar ñu mën faa jaar ndax ni ma daan dégg mu koy faral di waxee danaan ajjanay ajjanay kenn di gàcce la ci ni ko mag ñi daan faral di waxee maanaam yow mi nga xamante ne bi yàlla borom bi dimbali na la ba nga am góor gu baax goo xamante ne moo la teg ci yoon bi xamal la yoon bi tette la wan la yoon boo demee ba àgg fenn fe danga war a jàppale ñeneen kat ñu mën a ñëw fekk si la te loolu bu ñu ko xoolee ci ñun ñi nekk ay ndaw yoo xamante ne bi dañuy jàng ci di saako xam-xam bala ko tamit di gëstuwaale ci wàllum tariqa bi surtout ñu nekk ci dëkk bu mel ni Canaba maanaam lu baree baree baree bare dañ cee war a bàyyi xel parce que yow mi nga xam ne par exemple nekkoo Canaba mën ngaa gis leneen tey boo demee Touba da nga fay gis leneen boo demee Tiwaawaan da nga fay gis leneen ak yeneen dëkk te de dafa lay leer ni la fa am lépp fii la gën a yellu ndax lépp lépp fii la basé woo tey ji yell woon na Canaba daara yi fi nekk ni mu baree baree bare ay daara ñu am benn école boo xamante ne bi dëkk bi moo koy moom maanaam maam Ahmad Ndak Seck la école bi di tudd ñi fay jàngale programme euh, euh, état bi di fa jàngale programme ñàngum araab waaye dafa di di fa jàngale waale xam-xam xam-xamu kër gi ndax tey bëri na ñoo xamante ne bi ku ci mel man par exemple wala samay morom da ngay génn ñu laal la nga ne cana ba ba nga te bu la bu la daaj ay question doo xam lay wax ndax xamul lu bari ci ci canaba xamul lu bari ci dëkk bi te loolu lépp dafa nekk loo xamante ne bi ay problème yoo xam ne dañ koo war a dañ ko war a solutionné te sàng ñu mu ko ñu mu ko jinjee nee na ndaw mooy dëkk maanaam avenir bu ñu ko waxee ndaw am ndaw moo mën a taxaw moo mën a defar waaye nag faaw mu fekk am ñoo xamante ne ñoom ñoo koy jàppale te ko wan ko yoon ba mu mën a réaliser li nga xamante ne bi moo la fi mag ñi bàyyi woon maa ngi jégalu baax baax ci kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah di am benn question rek bu mooy def comme que ñun dañuy wax ñun ñooy suufi yi te dafa bëri loo xam dañ koy askanale suñu bopp lu mel ni allahu fi kulli makaan suufi yi ñooy wax ne yàlla mi ngi ci bépp place wala huwal awwal wal aaxir wal zaahir wal baatin yàlla mooy azzaahir mooy li feeñ ba xam oustaz eh, ñun waa na ba xam dañoo gëm ne ñun yàlla dañ koy gis ci jamono bi ñuy dund walla loolu question la boo xam ne suufi yi dañ koy def te ñun ñoo koy wax si ñun ñoo koy wax suñu biir ñun suuf ñun ñoo koy wax généraliser ñëpp nag moo dama laaj question boobu noonu. docteur Khadim Mbacke moo moo ci li ma liir moom moom mu génnaale mu génn lettre bi am na benn euh, euh, kii euh, journal bi woon génn Maroc génn lettre bi mais dañu doon wax ni mooy moytandiku finko ak tubaab bi nangam nangam nangam ba sax doomam bi ñuy wax Sidi Ahmad mi ngi mi ngi ci maqbaratu Salonique fële fële fële ci kii Bamba Ndiaye nag bind na ci adwa fi Sénégal Bamba Ndiaye bind na nag stratégie bi Maam Maodo jëloon parce que Maam Maodo mi ngi nekkoon ndar di jàngale di jàngale di jàngale xam-xam mais nekk ci kër nijaayam góor gi Massamba Jéeri Dieng fa la nekkoon ñu xëy xëy euh, sondeelam jeex mu dem ci boutique bi lépp sondeel ba mu jàngee góor gi yëg ko jël benn dërëm daal di jënd paquet sondeel jox ko Maodo ko amoon jom la Maam Maodo mu ni lii moom rusu ko yor la yor sa doom di la jëndal sondeel ba mu jàngee ñu xëyee ci dem njarne njar dafa jàngale waaye taalibe di ko fekk ndax moom da doon tuuru ci xam-xam xam ba bari lool ñu ko fekk ba ba am na benn tubaab boo xam ne doon liggéey ci bureau gouverneur bi gouverneur Ndar ñëw ni góor gi Massamba Diéry Dieng tubaab bi jël na euh, décidé na jàpp si daal ak si ak sëñ Touba ak Samba Samba la ba Penda Xoma ci bi ci la gi daal di yónnee si daal mu ñëw mu ne ko diggante Ndar ak Dakar tànn fi fenn foo nekk ndax tubaab bi bëggul ngeen nekk ci loo xam xamu ko. waaye boo nekkee ci loo xam mi ngi lay gis ngay kii ci lay ñëwee Tiwaawan booba tubaab bi mi ngi mi ngi xam ñu koy gis muy jàngale muy muy jàngale muy jàngale ba ba ma jaay noonu noonu noonu noonu expliqué mais waaw ne ne bi nga xamante ne bii daal ñàkkaa ñàkkaa euh, yëkkati ji jaasi ah, comme ni gars yi defoon ñu ko seetlu jëkk bi moo tax tubaab yi favorise ko ci benn côté favorise favoritisme boo xam bu bu kii lool sax ba ci yooyu moo tax ñu def ko privilège yoo xam ne ñële amuñu ko loolu moo andi tamit xalifa ma ko ci Asfiya TV ñu fexe ma ne ma Amari Ngoone Ndak ngi ñëw mi ngi ñëw Canaba fii 1822 1882 1814 ci la génn àdduna ba 1904 euh, ci la Seydi Malick xam 1900 ci la Malick doog a ñëw Tiwaawan maanaam ñëw na Canaba ba sañ Canaba ba mu am juróom-ñaari at maa moo doog a ñëw Tiwaawan kooku kooku noonu ma noonu ma nekk xalifaam li demoon bi des sa wér mooy silsila ci silsila xaafisiya la silsila xaafisiya silsila tijaan yëpp wér mais bu xaafisiya moo bokk ah yi ci gën a ndax Cheikh moom la njëkk a dajal ni ko jox naa leen ndigal nga wasaare nga wasaare tarixa bi ci ci ci ci ci Maroc ak ci ak moom ci doog a ñëw jox ko Mawlud Fall Mawlud Fall jox ko Cheikh Abdou kii maam Cheikh Omar Fouti yi ak maam Cheikh Amadou ak maam bi mu ko jëlee ba nag moom dafa dem dafa def benn voyage am na vingt ans ci àll bi jóge fii dem Soudan dem Égypte dem dem Nigéria dem Makka dem sax Cham ci biir vingt ans yooyu maam Cheikh maam Mouhamadou Ahmad Ba mi ngi liggéey moom moo aqdamu tariqatin tariqa bi gën yoon yoon bi kii madrasa bi gën a yàgg ci tijanisme mooy la madiankisme waaw mooy la madiankisme mais xalifa général moom daanaka jëlu sax wax ndax affaire affaire tubaab la kii yooyu bi mooy. dana temps bi ah, waaw daanaka am na ko laaj fii laaj bi ak bi benn la mooy maanaam mobilisation xam nga eh, ndaw dañ ko defal juróom dañ koy jàngal dañ koy yar dañ koy jubbanti dañ koy yee dañ koy xamal li xew doog ko mobiliser temps bi ah, moom moo ne boole boo kii boole ndaw xale bi ñu jàngal yar ko yee ko jubbanti ko ba mu tegu ci yoon dégg nga kooku bu ñu ko tegee bu ñu boolee ci liggéey bi mu dox loolu moo tax seydina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci xool fi mu jaar Usaama ibnu Zeydin Usaama mooy général bi mujjal na me boobu 18 ans la am boobu saxaaba yu mag yi seen sikkim yaa ngi mais li lu war a nekk sax Usaama lépp nekk nekk na ci mu doog ko mu doog ko jox kii kon buñ ndaw li buñ lii lépp na war a nekk ci ñoom dañ ko ci nekk bi ñu des euh, ci euh, principe yi mag ñi yi mag ñi mag ñi daan daan yare mooy mooy mooy mooy mooy principe l'islam tënk la ci ba dindi ci yow yi nga xamante moom moo lay gàllankoor bokk na ci feebar yi nga xamante ne bu ku nekk ci yow doo mën a doo mën a yëg feebaru rëy feebaru gis sa bopp feebaru nay feebaru soxor feebaru iñaan feebaru xat feebaru yooyu mooy yi nga xamante ne dañ ko dindi ci yow bu ko defee nag maanaam ak ta at taxaliyatu xam na taxaliya ñu doo ko def ci yow leer baaxul i nga xam ne xasaali ki ko tarbiya gis ni mën naa jàngool mais benn jikko moo nekk ci moom mënul yëg mooy dafa rëy da ko raxasloo duusi duusi xale yi bàle na ci kàddu gi ak ak sikkim bi bi mu nangoo rek fi mu sukk ba kii kilo ki def ci suñu borom dafa des mooy euh, am na ku laaj ci tarixa tijaan ponk yi rek lañ joxe mais li mu Cheikh Mamadou Sy wax tarixa am na fiqu tarixati conférence nag ak daay la ko fa ak daay la mën nga cee tibbi xal taal mais mënoo ci ñoral la cin pour ñoral cin moom da ngay taal moo tax pour nga am xam-xam moom da ngay nangu da ngay da ngay toog nga jàng ubbi téere dégg moo mooy jox xam mais conférence dañ lay jox grande ligne rek bu ko defee yaa yaa yaa yaa jóge kii yaa jóg daa daa dem kii bii ñu des mooy li mu wax ci orma lu ama am solo la gis nga ko am orma du jëw mukk ko am orma du jëw mukk du jëw léegi nag yonent bi nag nee na kàccoor nañ koy waxtaane bala moo trompé ab jullit ñu bëgg lu jëw waaye ñaaw téef bu am téeméeri at bu ko gonee waxtaanee rek mag mu amul orma la ko dégg waaw ndax bi nee na xas ba wan gannaaw bu kenn wax ci moom lu ñaaw uzkuru mahaasina mawtaakum kon ku am ma doo jëw doo wax doo wax luy moo tax yoon ba tere woon garan place yi euh, kii iyaakum wal juluusa fi turuqaat garan place ñu ne ko mënul ñàkk mu ne ko nañ ko def majalis ci la majalis garab yëpp boo demee boo demee boo demee Somalie garab boo gis kulliya la da ngaa garab gi la naxu lañu fay jàngale bëri usul bëri kii noonu noonu ma ma ma ñu defoon bi ñu des mooy euh, muy baax na ko ci euh, daa am luy jiitu maam suñu tubaab nee na summa taqdimul fiqha ala tasawufin wujubuhu qadin jala nee na jiital fiq ñu doog laa tarbiya daa war kon balaa bala ñu laa tarbiya da ngaa war a am xam-xam jàng li nga war a jàng ba noppi nag ñu la kii mag gi noonu daan def da daan da daan da daan jàngi xam-xam laxas boo laxas ginnaaw ba nga paree ci alxuraan karim ba noppi ndax alxuraan ibn ibnu abdul biri nee na mooy mooy baasu doomu soxna su ma saxir wala xam-xam doomu soxna alxuraan ji mokk mooy baas ba boo ca paree nga laxas ba ci boo ñëw ñëw bu la cuuti man sama papa bi mu paree bi mu jógee mbos am na cuuti ñaari at sama bàpp booba mi ngi bokkee néeg baay baay baay baay Ibrahima Sall bu baabu salaam ak góor gi Mor Ñang góor gi nee na ma nee na ma nee na ma kenn ku nekk bi nga ñu la war a nekk ci xam-xam ci yow mi ngi ci waaye ñoom ñett kenn ku nekk am na loo mot loo war a mot la ci sa morom waaw moo tax bi bi bi bi paree de 1962 ci la ko sëñ Ibrahima Seck jëlee fi yóbbu kër yaaba ba mu eggee avant muy samp de fàkk nañu fàkk nañ jàng bi fàkk nañu fàkk nañ jàng bi donc kon xam-xam xam-xam moo war a jiitu eh, gis yàlla ñun de loolu suñu pas-pas suñu pas-pas yàlla du ko ñuy gis kawtee fi yàlla yi ngay gis di ci waaru waaw waaye ñun lu ñu pas pas pas yàlla du yàlla du ko ñuy gis même yowmal qiyaam kenn du ko fa gis parce que bët mënu koo gis bët bët lu ñu peeg la ñuy gis bët lu ñu peeg la ñuy gis waaye suñu pas-pas ñun daal yàlla moom nekkul ko ñuy gis day gis ay kawteefam nag moo tax moo tax moo tax moo tax euh, imaamul ki nee na euh, euh, Eh, eh, eh, yow yàlla kañ nga fàddu ba ñu soxla loolu la ñu tegtal maanaam faatiri samawati wal ard afillaahi shakk faatiri samawat ndax am nañ benn sikk sàkk ci yàlla dumu bind asamaan ak suuf si kon koo xool rek nit ñi asamaan sa bopp sa bopp xoolee gis ci màggu yàlla subhanahu wa taala loolu loolu loolu lañ gëm da alxuraan loolu la wax bu ko yonent yàlla Moussa nekk wan ma te boobu dafa amoon lu tax yonent yàlla Moussa yonent yàlla Moussa juif yi ñoo ñu ko wan arina allaha jahratan mu faat leen ñoom ñëpp boobu dañoo tànn sélectionné tànn ñu ma àndal sa benn rajo la ñu dem ca miqa ba yàlla wax ñu digg kàddu gi ñu ne ko wan ñu ko yàlla faat leen ñoom ñëpp Moussa ni suñu borom euh, ah bu ma kii dee bu ma demee ni dee nañ digg su ma baax naa comme mu dekkal leen léegi nag Moussa ne yàlla defal test naa dem bu ma defal sama kanam ma dem ba seen kanam ci ci boo demee ci animal kalaam animal kalaam am nañu ko jàng sama xasan tarxii nii ñu ne nettalee bi mu demee mu ni leen yàlla bu ma demee ba seen kanam li ñu ma waxoon li ñu waxoon moom man danaa ko wax nga am foo jaar ba teg seen bët bu ñu demee ñëpp doo xam ne yàlla arini anzur ilayk yàlla wan ma a ma gis na waaw pour pour mu am mu am xojja ci communauté mi yaa ni ko xool montagne bi waaw ba montagne kii rek Moussa xam ba mu kii nag loolu Moussa Moussa pas-pasam moo yàlla du lu ñuy gis ci bët waaye daf bu woon awlay ci communauté ci communauté mi loolu ko seex moom xanaa sam tarxii ni leeral la ci téere bu ñu wax ilmul kalaam yaa nga dégg nga dégg waaw euh, kon xam bu ñu xam yàlla mooy mooy mooy ngëlëmte ci nekk yàlla naka la nekk alxayratu nawaan xayra fil maahiya kufrun wa xayra fil fil kayfiya imaanun wa maarifa maanaam ngëlëmte ci amu yàlla kooku ak yëfër la waaye ngël ci la nekkee kooku moom moom mooy xam-xam imaam Malik nee naka googa imaan al kayfu imaan wa sualu anhu bidda wal imaanu bihi waajib am na mu ne al kayfu majhuul wal imaan waa kër ma ma xamuñu xamuñu ndax xaju ci Abu Xanifa maa ngi guddal de bi gaa yi laajee kayfa boobu waxal nan la mel mu ngi ci tefes gi mu sëgg di gas ne may leen ma tuuti may di gas yaa ngi ko ay gis nañu yàkkamti loo bëgg ni ci bax mi mooy ndoxam géej gi laa bëgg sotti ci bax mi ñu ko ay kii nag yow da ngaa de ndoxam géej gi nag mën na si ne ci bax mi mu ne waaw kay ñëw ngeen nag gis ngeen bax mi moo gën a yaatu seen xel yi te li ngeen laaj mu ëpp ndoxum géej gi waaw waaw kon kon kayfa boobu moom kayfu boobu nag moom moom loolu lañu wooye loolu lañu wooye kii ku fekk si nag da nga soxla dalil da nga ñaan ijaal dalil naa alxu dalil naa fil xayra dalil mooy moom alxuraan ak sunna mu lay tegtal fi ngay jaar ba doo ba doo gëlëm ko laaj yooyu ñëw fi ñëw Cheikh laaj na fa laaj yu laaj yu bëree bëri ba ci crise crise yi am ci wàllu jikko crise yi am ci monde musulman yëpp azmatu imaan mooy base ba crise ci pas-pas pas-pas bu yàqoo rek lépp a yàqu waaye pas-pas baaxee rek lépp baax laaj na tamit ban sëriñ ñu mën a topp mooy ni maam suñu waaw wa man tafaqa wa man ja wa man nu mu ko waxee wa ki boole ñaar yëpp jàng ba xam diina xam gu wér wér wér ba noppi nag man na maanaam xaadina tasliik tasliik mooy teg la ci yoon wi bil quraan wa sunna pour yëgal tasliik wa tarqiya kooku parce que euh, ku lee lugat da laa war a tiim da laa war a tiim bu nga wax jëma ñëw waaye koo xam ne bii ne yéen a tolloo dalay dalay dalay ko am boo booy gëm di gis ay heurem da da dalay tardeel tajdiit mooy xaslu al admi xa raxasaat yuur yi yi ci nekkoon ci ay déggéen yu bon loolu lañ mooy tajdiit mais diine amul lenn luñ ciy bees rek lu ñu kii waaye digg ni nit ñooy dem ba xaw a day waar am ku ñëw nag taxaw moom la maam Cheikh Amadou def moom la maam Amadou Ndaw def bees la déggi ni da nga dégg bi ci des mooy euh, euh, nan la ñu mën a ñi song tasawoo ñi song kii yooyu fa la ñuy jaar ak ñoom mooy jàngi rek jàng moom mbir moom jàng dong du leneen jàng ba xam waaw nen nen bii moom xam-xam moo koy protégé bu fi xam-xam ñëwul waaye moo jóge fa toj ko nga ñi ñëpp ñàkk kon mbir mi ci jàng la ne nañ jàng jàng xam-xam mooy tax nga xam boo xamee mooy tax nga jëf jëf ju leer naññi xam-xam mooy tax nga nekk boo fi nekkee doog doog ni naam waaw doo fi nekk bala ngeen naam ne fa